di président bu PASTEF ngir rek daal di koy moom it gunge rek ba teg ko ci nguur gi kàddu yooyu rek la kii di internet boobu ah, daal di rek yëkkati jëmale ko rek ci biir eh, émission bi ci participation bu rafet bi nga xamante ne rek daal dina ko ci def. waaw salaamaaleykum. Ah, salaam. soxna si sëñ bi. waaw ngi waaw ñu ngi sant bu baax a baax di la ziar di la laaj tur bi ak fooy wootee. maa ngi tudd Modou Sakho maa ngi wootee waaw Modou Sakho ñu ngi lay ziar naka waa Ziguinchor. ñu ngi si jàmm alhamdulilah. alhamdulilah lay déglu. waaw di wax ci tolluwaayu réew mi mhm, mag ñi di wax. Mhm. mooy jàmm. Mhm. buñ ko dee woote. dañuy njëkk a ndox jàmm njëkk. waaye doo toog di wax rek naan jàmm jàmm. te doxuloo jàmm. ndax mbirum dossier bi Mm-hmm. keroog bi mu déparé mm-hmm. ñi nga xamante ne nii mm-hmm. seen xel yi màcc na te ñu doon nit ñoo xam ne nit ñu gëm yàlla la ñëpp d'accord ne dossier bi dossier politique mais comme yàlla dimbale nañu tamit bañ dem ba xam ne dossier bi dossier politique la leer na waaye ngela nañ bàyyi doomu jàmbur nañ ko bàyyi mu doxe ay soxlaam dinañ ko bàyyi mu daani dooleem ndax dafa am njaboot mm-hmm. te soxna si réew mi fi mu nekk nii mm-hmm. ñëpp ngi tiit doy na waar ñëpp a ngi ci ay coono mm-hmm. di xelaat tabaski bii te benn xel dabi ñun fii ñu nekk Ziguinchor mun naa la wax ne dix presque liggéey doy na waar lan moo ko waral mooy li nga xamante du dëgg du yoon Mm-hmm. comme atte nañ ko nag setal na ko ci wàllu bi ko doon toppee mm-hmm. nañ ko bàyyi mm-hmm. suñ ko bàyyee réew mi am jàmm ñun dañuy wax ne Sonko mooy Sénégal ndax lu ko waral mooy ñu ndaw yi Sénégal yi moom lañ àndoon ñun doonoo takk wala dëgër tey liggéey boole kook di dimbale euh, Pastef tey ñun Pastef amul leen loo xam ne dañ koy sàcc Mm-hmm. mbaa ñi di ko ñaan nag ñun ñi ndaw ñi nga xam ne dañuy liggéey di ñàkk mm-hmm. ñooy ñàkk di dugal ci keesu Pastef kon lu ñu lu ñu leew rek lañ bëgg ñi ngi ñaan nag Macky Sall na bàyyi Sonko sinon mm-hmm. nag bu ko bàyyiwul ah réew mi moom gëm naa ne daf ko bëgg yàq kon dem yoonam ah, te joxe wuñ ko ko woon nii kon na fexe rafetal ko te déglu suñ kilifa diini yi amuñu lu dul ñoom waaw loolu lañ amoon dañuy wax. dëgg la jërëjëf. jërëjëf ñu ngi lay bëggee di bëggee waa Ziguinchor yëpp. merci beaucoup euh, ñu ngi koy euh, remercier bu baax moom tamit euh, ci participation di kontaan bu baax ci participation bi nga xam ne def na ko ak kàddu yi nga xamante ne daal dina koy yëkkati di wax ni rek ñoom dañoo takku ba dëgër rek jamono ji ndax nag toog nañu fukki fan yoo xam ne liggéeyuñu allo salaamaaleykum maaleykum salaam. waa waaw ñu lay nuyu sëñ bi tur bi ak fooy wootee. man la sëñ Xaadim ah sëñ Xaadim ñu lay ziar. ñu ngi bu dee téléphone bi dafa nekk haut nga dindi ko. waaw waaw waaw. maa ngi nuyu auditeurs yi mm-hmm. ñaan jàmm ci amiin di rafetlu seen plateau bi. Mm-hmm. di maa ngi déglu ñu doon wax. Mm-hmm. waaye li ñu doon wax mm-hmm. ndax luñ mën a fexe ba jàmm am ci mi rek. mooy mooy sunu mooy mooy sunu bëgg-bëgg. la waaw. waaw ah. dëgg la jë eh, jërëjëf sëñ Xaadim ñu ngi ñu ñu ngi rafetlu sa dugg ci biir émission bi eh, li ñu la li ñu lay eh, jëkk laaj rek moo di tey ñu ngi am na polémique boo xam ne ñu ngi koy laam-laamee démb ba tey di laaj rek ndax ki nga xamante ne moo di président moo ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko kii di Macky Sall président Macky daf ko daal di woolu loolu nag mu jur polémique ñii ne dëgg la ñii ne du dëgg gis nañu ki nga xamante ni euh, moo di Pape Alé Niang daal nay génn daal di ci àddu di wax ne euh, loolu amul tey euh, naka nga gisee loolu ak lan nga ñu ci mën a wax. Pape lan la wax ne amul. nee na kii di li ñu wax ni xalif général. des Mourides dafa woolu mm-hmm. Ousmane Sonko ngir mu ñëw wuy ko. Mm-hmm. moom nee na loolu amul. Mm-hmm. waaw nee na loolu amul euh, soo ko waajul benn yoon pour dem gisee ki nga xamante ne euh, moo di xalif général de Mourides te ñoom yëguñu benn yoon foo xamante ne rek daf ko daal di woolu euh, ñu bëggoon a xam tey yow loolu lan moo ci sa xalaat ak bu fekkee nii rek am nga loo ñu ci mën a leeral. waaw man de mas na maa déggee ci sëñ Abdou Mbacke. Mm-hmm. di di xaritam. di nit ku baax di nit ku dëggu mm-hmm. te dëkk daaru moxti mm-hmm. bi problème yi soogay démarré mm-hmm. ñu jële Sonko ci yoonu Kaffrine bi xawma indi ko ci këram mu dem fa bëgg koo ñu interdit ko ne ko mënoo koo mu ñëw ba ci sëñ Muntaxa wax ko situation yi nga xamante ne moo am ci réew mi sëñ mi ne ko man yëguma ci dara mm-hmm. ne ko nag euh, euh, kenn du ma dara sëñ bi ne déglu leen ko mhm. dinaa ci dinaa ci dox mhm. dinaa ci wax waaye dañoo gisut nag mhm. eh, ne ki nga xamante ni moom moo jiite réew mi mën naa am sëñ ñaan na ko ci dox na ci wax na ci waaye réponse ci public bi la ko la ko la ko la répondre mhm. ndax dafa wax ne la woon woon ni na waaw li amoon dootu fi amaat waaw te li amoon mhm. gis nañ ne amaan na mhm. muy lan mooy wàllu manifestation yi mooy manifestation ak yàq yi ak moor yi ak blessure yi waaw ak ak ak ak ak détenu politique yi loolu moo amoon hmm. te amaat na la te bu ñu sañoon hmm. mu fàttaliku moom hmm. li ko faloon dafa amoon ay nombre de morts amoon ay nombre de blessés am ay détenus politiques dëgg la dugal ko ci fale bi moom dëgg la kon nag warul woon a ji Sénégal yi lii xew nii waroon naa mën a woote dialogue bi ca mm. deux mille ca deux mille vingt et un dialogue mm. bi ca la waroon a nekk da nga gis ne dialogue dialogue bi daf ko yéex a woote dialogue bi daf ko yéex a woote mm. avant trente décembre waaw waroon naa woote dialogue mm-hmm. ñu ñu mm-hmm. mm-hmm. buy dugg buy def discours à la nation wala 4 avril mu wax ko ci Sénégal ñëpp dégg ko Mhm. ñu xam lan ñu xam ñun deux mille vingt quatre mhm. lan mooy xew mhm. waaye nag bàyyi ba nga xam ne élection yi ay huit mois moo ci def mu naan nañ ko may ñaari at léegi ñun mënuñu ko ko may ñun sénégalais yi mayuñu ko ñaari at liñ ko faloon mooy lu légal buñ ko mayoon ñaari at la ñaari at yooyu légalul waa kon nag nit da ngay gore mm-hmm. Macky dafa war a gore dëgg dafa war a gore ndax dafa ndax ñun Sénégalais yi mm-hmm. dañoo mën a fajal nit aw mer mm-hmm. ba mere ñun ñoo jógoon fajal ko aw meram dëgg nag ba jekk wan yi boppam ne nii ndax li jot faatu nii ci ay injustice mm-hmm. jàpp naa ne musta am ci Sénégal li jot am ci détenu politique mm-hmm. jàpp naa ne musta am ci Sénégal mm-hmm. te Sénégal ñun ñëpp benn lañ te ay mbokk lañ te lii xajut ci réew mi dëgg mun taxaa nag bu soxlaa waaw président Sonko war naa mën a toog ak moom dëgg la gis nañu ne gis nañu ne tamit ki nga xamante ne moo di Cheikh Bara Ndiaye euh, moom it euh, daal dinay def li nga xamante ne jamono ji daal dinay commencé grève de la faim maanaam xiifal foofu nga xamante ne fa la nekk ci prison bi ginnaaw bi nga xamante ne daal dinay am retour de parquet. waaw man su ma sañoon. Mm. Cheikh Bara def grève de la faim. Ah, lan moo tax. ndax gis nañu ne gis nañu ne gis nañu ne Pape Alé ba mu bañ ko bañ ko bañ tëyee moom it defoon na lu ñuy mel defoon na grève de la faim. waaw xam nga Pape Alé Niang. Mm-hmm. ak euh, Cheikh Bara mm. bokkuñ. Mm-hmm. waaw Cheikh Bara moom. waaw. xam na li ci alxuraan. xam na li mm-hmm. alxuraan wax. dëgg la te sëñ daara lay day jàngale. ak diine da koo tere lool. ah diine dafa tere grève de de la waaw. ndax ndax alxuraan diine da koo digal. Hmm. muy dund muy lekk. Hmm. di naan. Hmm. waaw diine da koo digal. waaye dara jot ko. te grève de la faim mën na koo indil feebar. kon nag lu ko ci mën a dalit dafa xaru. te moom dafa war wane bon exemple mhm. wane grandeur mhm. ndax ki mu yaakaar àdduna ak alaaxira mhm. muy Seexul Xadiim dëgg la biñ ko exilé waaw dafa wane ak mat ba ni ko suñu borom indiwaate dëgg la fii ci Sénégal kon nag su ma sañoon mu roy ci moom bu fekkonte ne liñ ko tëjee nii sax moom xam na ni dëgg la su boobaa mën na ñun mën naa am lu ko ci naqari mm-hmm. waaye nag tëj la ci loo xam ne mm-hmm. yow njortu nga ne lii dara laale woo ci dara du dëgg mm-hmm. kon bu mu bu mu ko jaral dara ay grève de la faim wala wala muy sàq xam nga sàq mooy lan mooy découragé ah waaw muy découragé waaw ah, yooyu olof da daa xóot moom bu mu ko jaral découragé <laughs> uh-huh. ci nam meloon ak nam doon doxe mm-hmm. ndax nim mel alxuraan a ako def ci moom ndeysaan ak fa mbokk dëgg la te ndaw yi kilifa yëpp mm-hmm. gis naa ñuy def ay intervention ci moom mm-hmm. di dox ci biir jàkk ak i juma di ko ñaanal yàlla di defaale ay dek ay déclaration di ko ñaanal njëkk ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi mhm. ak kilifa gi yor réew mi dëgg la ngir ñu bàyyi ko mu delluwaat fi mu fa mu woon mhm. ndax li doon def noonu waaw la Sénégalais yi bàyyi xel ni mhm. Sénégal rek a taxoon mu doon ko def ndeysaan dëgg la Sonko taxul Macky taxul dëgg la